chers amis talibé euh, bienvenue à Thiès bienvenue à la mairie de ville dañu bëgg ci y bi dalal la de yow ak président de la république du Sénégal son excellence Macky Sall Santanéon, premier lundi du mois bu nek mo am cérémonie de levée des couleurs yalla dogal na non? ci ville de Thiès depuis buñ togué fi ba légui lundi bu jot dañuy def cérémonie de levée des couleurs euh, ñuy sant yàlla boobu ba légui defe na ni ben lundi la amul. te dafa fekkoon mu am conseillère bu ville bu génn àdduna ah, yal na ko yàlla yërëm tey jii nag teewaayu ministre bi moom xay na dina ci gën a xuus ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo séq dëkk bi waxtaanu jàmm waxtaanu defar du sax xuloo wala ay bu fi am muy ñew def médiation déedéet dafa fekk bu fekkee ne dafa am luy dox te wéeru ci code général des collectivités locales mu doon luñu ñu bind kenn ku ne man ko jàng kenn ku ne man ko dégg nim ko déggee te ñu war ko jëfee bu ñu koy jëfee ci même place bi lañ koy jëfee dafa baax comme dañ ne wat gaal ak yéegoo nit ñi nga xamné ñoo seq loolu ñu waxtané ba am même gis-gis ak même dégg-dégg ci kayit bi ñu leen jox lan cadre la au-delà de la cérémonie de levée des couleurs dina am jataay bo xamné war na les bureaux yi am ci dëkk bi muy ville comme ñetti ak yi ñi mu waxtaan woowu la cay génne yaa am nañu yaakaar ne buñ ci jógee day gën a yombal doxinu dëkk bi kon da ngeen a ñëw ngir yokkuñu ñun nag dañu bokk slogan Thiès avance mais pour que Thiès avance il faut que les communes roulent sur de bons rails les communes roulent sur de bons rails pour que Thiès avance loolu la ñu bëgg donc ñu ngi leen di gërëm ci effort yi ngeen def ñëw jógee Ndakaaru

Euh, maa ngi di booleek sama frère yi di Aliou Sow Lamine Diallo ak Pape Basirou Diop euh, bu ngeen demee daañu leen daañu leen dimbal <laughs> voilà léegi fii moom comme ni ma leen ko waxee woon euh, li ñu jot a am ku néew incha allah monsieur le ministre jënd nañu ci médicament fukki million ak juróom fukki million ak juróom jënd nañ ko ci médicament pour jox ko poste de santé yi loolu mooy suñu ndéwénal.

Responsable et membres de la sécurité, mesdames, non, mais les maires des communes, parce que je disais la dernière fois qu'il n'y a pas de parité au niveau des maires des communes, il n'y a, que des hommes, mais je crois que la prochaine fois, il y aura au moins un maire. Donc, dames, il y en a deux, il y en aura deux, <laughs> et ce sera la, parité. Euh, je donne effectivement euh, l'exception en termes donc de, de salutation à la fanfare. Je salue bien la fanfare de Et je reviendrai effectivement par un message fort à vous tout à l'heure. Monsieur le maire l'a dit, euh, nous sommes venus ce matin participer à cet exercice qui est extrêmement important du point de vue de la citoyenneté parce que vous vous souvenez que le plan Sénégal émergent, initié par son excellence de président Macky Sall, porte fondamentalement trois piliers. Le premier pilier, c'est la transformation structurante de l'économie du Sénégal. Le deuxième pilier porte sur une certaine économie solidaire en termes donc de répartition de la richesse de manière équitable mais solidaire pour ne pas laisser effectivement les démunis sur le bord du trottoir. Mais il y a un troisième pilier extrêmement fort, extrêmement puissant, c'est le pilier de la gouvernance. Une gouvernance transparente, une gouvernance vertueuse. Et je crois que le fondement de la gouvernance vertueuse, c'est la citoyenneté. C'est nous adosser effectivement sur des valeurs. Et aujourd'hui, cet exercice-là est en réalité un des socles de la citoyenneté parce qu'il s'agit effectivement de nous rappeler des valeurs de la République. Parce qu'au-delà de tout, c'est la République qui nous unit. C'est la République effectivement qui est le socle de notre existence citoyenne, de notre existence dans ce pays-là. Et nous sommes venus à Thiès pour autre chose aussi après cet exercice. Et je félicite M. le maire. Il me disait que tous les lundis, cet exercice se fait à Thiès moi j'ai envie effectivement de lancer un appel extrêmement fort à toutes les collectivités locales du pays pour qu'à tour de rôle, que le ministre puisse se déplacer chaque fois pour aller effectivement à la rencontre d'une collectivité locale pour participer à véritablement cet exercice citoyen. Nous allons essayer, sur le directeur de cabinet, de lancer ce message parce que c'est extrêmement fort aujourd'hui et d'être là à Thiès pour dire que la citoyenneté est importante. Nous sommes venus aussi pour une très large concertation. Une concertation autour du Code général des collectivités locales. Faire en sorte que tous les bureaux des communes, la commune de ville comme des autres communes, puissent se retrouver autour d'une discussion extrêmement, j'allais dire, approfondie sur la quintessence du texte. Parce que si les choses sont claires de ce point de vue-là, il n'y a pas d'espace de non-compréhension. Je disais effectivement à un ami, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des équations mal posées. Il est important donc que l'on se retrouve pour essayer ensemble de voir quels sont les éléments de l'équation pour pouvoir effectivement la résoudre. Donc, nous sommes dans une démarche problème solvé, dans une démarche de résolution effectivement d'une équation, il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous allons effectivement nous retrouver tout à l'heure. Moi-même, exceptionnellement, pour vous prouver effectivement que nous sommes dans un schéma de compréhension, parce que d'habitude le ministre il vient, il ouvre sa séance après la pause des Pays-Bas. Et moi-même j'aurais bien aimé rester avec vous jusqu'à midi 13h pour apprendre, pour regarder effectivement donc les éléments de base de ce code. J'allais même rester jusqu'au soir éventuellement avec vous. Mais le chef de l'État m'a demandé de bien vouloir diriger la délégation qui doit aller effectivement au-delà de Dakar effectivement tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement une célébration donc, de la prière euh, du grand cher, Cheikh Hamad Bamba, qui se tient à Yoff. je devrais effectivement diriger la délégation. Si ce n'était pas ça, monsieur le maire, j'allais rester avec vous jusqu'à la fin effectivement de l'exercice. Mais aux environs de midi, je crois que j'aurai déjà compris la quintessence donc, des éléments de mission et je pourrais effectivement me retirer. Pour que le processus puisse continuer après, après de manière régulière, et vraiment de manière très participative, mais aussi dans une logique de proximité. Nous allons souvent revenir à chaque fois de le besoin. Pour dire que le management moderne, c'est un management de proximité. C'est un management qui réduit ce qu'on appelle la distance hiérarchique. Pour le moment, au plan géographique

njum nag li ko mooy li def nii mooy fexe ba daje pour xool réew mi lan moo ko ŋànk si bala kon exercice yu mel nii bu ñu fexee ba lawal ko partout dinaa lancer un message pour que commune yëpp man ko dugal effectivement seen processus man benn yoon laa koy def par weer mooy fële si Yoff man maay maire Yoff mardi bu njëkk si weer bu nekk danaa ko def

rôle mission responsabilité pour que ñu mën a comprendre ku nekk rek lan moo sa cër si mbir mi parce que dama gëm ne comme ni ma koy wax souvent sama benn xarit te problème amul y'a que des équations mal posées bu ñu dajee rek toog nañu poser équation yi résoudre ko le plus rapidement donc tey te exercice boobu laa ñëw mu nekk exercice boo xamante ne exercice bi njàng la man mii sax damay ñëw jàng si parce que nag euh, bu fekkente ne woon exercice rek damay ñëw cérémonie de Tugas mbir mi rek pos kafe ma demal mais dama bëgg toog ak midi si li xamante dong donc dafa am solo su bu dul woon ne sax kilifa gi daf ñu yónni fële si ñaar rakk yam Dakar ma war a jiite délégation bu war dem damay doog ak ba mu jeex mais à partir de heures allah libéré wu yaakaar naa moment boobu nag dana fekk gam lu bëri nag ñu wax ko ba mu mën si gawam taataan lu bëri bëri en tout cas maa ngi remercier population Je remercie Tala parce que lii wax dëgg yàlla engagement la te management bu bees bi xamante que vous avez war a yore réew mi moo yor àddina bi management vous xamante ne dañu wàññi li ñuy wax distance hiérarchique management de proximité la parce que si discours am jàpp naa si loo xamante ne vraiment bu ma ko waxee xaw na ma dugg mooy si ordre protocolaire bi tudd na si taalibe yi xam loolu dafa am solo parce que la première fois dans l'histoire du pays que ma dégg quelqu'un le maire ba pare si biir mu ne municipalité des talibé solo ça veut dire que am na benn message de proximité avec les populations kon taalu maa ngi lay féliciter bu baax lii daal lu rafet la maa ngi ko rafetlu tout à l'heure danañu waxtaan jàng loo xamante ne incha allah processus su échange bi dana continuer pour que lépp loo xamante donc am na fi rek si des incompréhensions ñu mën ko lever exercice pays, prévoir nañ ko à Guédiawaye je crois que le secrétaire de cabinet dañu wax kañ lañ koy def prévoir nañ ko à Dakar prévoir nañ à Pékin. donc dans toutes les villes il y a dafa am ville ak commune rek prévoir nañ fa exercice gouvernement. mais fii lañu commencé cette Thiès Inch'Allah, Dakar dès la semaine prochaine il y a un déjeuner qui est prévu avec l'ensemble des bureaux plus le ministre et puis ñu allons Guédiawaye à à à à à yi xamante ville ak kii ñoo ko ñoo à seq nan la ñuy defee exercice bon Jaz bi bil en ljudem a reči, aberrations pour vous, ma expérience de voyage de ce point